mbokk yi ñaari mbër noonu ci diggi géew bi ñaari yaa ngi noonu ci diggi géew bi Youssou Ndour à gauche Mbaye Diouf à arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu bañ nee na bu ngeen déggee sifflé ngeen bàyyi Mbaye Diouf Youssou Ndour Mbaye Diouf pied droit Youssou Ndour pied gauche grand combat baa ngi noonu journée Baol production dimanche 22 mai il est 19h34 arbitre bi sifflé na Youssou Ndour Mbaye Diouf Baol Youssou yu Balla Gaye gauche Mbaye Diouf à droite Youssou Ndour teg pied gauche Mbaye Diouf teg pied droit Youssou Ndour sëgg na tibb ci suuf si eh, Mbaye Diouf a ngi déplacé wu Youssou Ndour dox ci kaw ki nga xamante ni mooy Mbaye Diouf journée Assane Ndiaye Baol production Ka dox na ci dox na ci kawam Youssou Ndour Mbaye Diouf Mbaye Diouf a ngi reculé Youssou na ko door na ko <laughs> Mbaye Diouf door na ko Youssou Ndour remis ko Youssou Ndour Mbaye Diouf dafa mel ne ko bëgg a jàpp na ko mu génn Youssou Ndour Mbaye Diouf am na benn avertissement arbitre sifflé na jege yaantoo nañu Youssou Ndour da ko bëgg a jàpp jàpp na ci ngemb la Youssou Ndour jàpp la am na benn loxo ci ngemb da ko bëgg a fàq wala lu loxo da koy daan vite fait bien loxo mu daanu Youssou Ndour doole yemul Youssou Ndour daan na ko doole yemul doole